enquête xëy fësal yi nag démb ko doon amal ca tribunal ab Ndakaaru waaye Ousmane Sonko nag ëllëg ci alxames ji lay xam nag ana dogal gu àttekat yi di jël nag ngir xool ndax dana bokk ci élection présidentielle yem déet yéenekaay bi nag di fësal ne moom Ousmane Sonko ay chance am ma nga ca loxoy yoon Ousmane Sonko muy bëgg a ñàkk xeex bi loolee nag la yéenekaay bi de Le Quotidien daal di fësal mu dellu siwaat nag di xamle ne kon procès bi ñu doon amal dàq nañu ko ba ëllëg ci alxames ji waaye nag boo moytuwulee danañ ko wéyal ba mu yegg ca pourvoi te itam nag ab bokkam ci déppo yi nga xam ne rek moo soxol fichier yi nag des ko xoolaat les ko nag dikk tey jii di ñu xamal ne nag ndakaaru gu ne tekk la ñu nemmeeku ni ki démb ay avocat yuy fasante sikkim Ousmane Sonko fas yéene xam nag lay tukkee ci àtteem ni ki ëllëg ci alxames ji yéenekaay bi ne ay càppante yu mitti nag amoon na ci diggante avocat yi maître Babacar Niang ma nga yàq lu mel ne xamee Ismaïla Madior Fall ne ko ab analphabète nga xamoo dara ci wàllum droit pénal dellu dellusiwaat ne atum 2012 ak léegi lii di droit dañu ko rey ba mu dee fii ci réew Sénégal lu jëm ci wàllu droit pénal itam kazalika les fa yéenekaay di ko feelu ne xuloo bu tarkay yi lañu nemmeeku démb ci diggante avocat yi nag maître Ciré dox lii ma ngay xamle ci boobee yëglekaay ne àq ak yelleefu Ousmane Sonko dañu koo salfaañee te lu jiir njàgg nag état bu Sénégal moo cay njàkk waaye nag duñu bàyyi ndax combat bi moom dañu koy wëyal maître Babacar Ndiaye di xamle ne ay comportement wuyu ak i bandi moom la ñu nemmeeku ci état bu Sénégal di amal ay faux documents ngir mën a justifié wu maître Larifou ne man kay dama choqué rek ci ni ñuy amalee lii di procédure yi lii nag moom rafetul benn yoon ci gis-gis te itam nag du honneur ci Sénégal ci jamono joojee nag maître El Hadj ma nga leen di tontu ci biir yëglekaay bi naan leen diggante ñu nag yéen dinañu xam ana kan moo cay woyu baak bandi bi yéenekaay bi di laas ne ñàkk bokkub Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi kay jamono ji mi ngi xeeñ maître Bamba Cissé ne Ousmane Sonko moom bis bu ñu ko bàyyee mu doon candidat ci élection présidentielle yi bésub élection yi nag bu midi di jot rek yëf yi dina leer weer ci candidat pastef bi beneenub candidat moom la bés bi le jour xëy amal ab portrait mu di maître Moussa Diop dundam ak jaar-jaaram dalee ko ca Podor ba ca Sorbonne loolee lépp nag yéenekaay bi dellu suwaat na ci libération moom it xëy dellu suwaat ca la tukkee ca enquête bi ñu doon amal ci diggante maître Moussa Diop ak procureur de la république yër leen boobee yëglekaay Le Soleil yëglekaay ci jamono joojee nag dellu suwaat ci kàddu yi nga xam ne rek Macky Sall ko doon yëkkati nag ca mi nga xam ne moom la mbootaayu njiitu réew nga fay wax ay dëggam ca na gisee nag àdduna bi yépp ci tribune yëglekaay Birahim ma nga fay tontu njiitu réew mi ginnaaw ba mu xamlee ne nag lii di populisme radicalisme ak extrémisme nag bokk na ci li nga xam ne dafay salfaañe àq ak yelleefu doomu aadama Birahim Seck ne ko déedéet mal gouvernance injustice ak inégalité bokk na ci menace bi gën a doy waar ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama le témoin moom daal di dellu siwaat ci élection yi nga xam ne rek moom lañ doon amal soxol central syndical yi nag lañ ca gën a nemmeeku nag bokk na ci